sur ce plateau avec dans le Les Trois de Foin de Rufisque. fois champion d'Afrique de lutte traditionnelle, il a à son actif 21 combats dont 19 victoires, un nul de file de l'écurie Ndakaru, il vient nous parler ce soir de son de la lutte général. Nous avons le plaisir de Aleykümselam. salaamaaleykum uh, champion. maaleykum salaam Alioune. waaw ñu ngi kontaan trop trop si li nga fi teew vraiment si plateau grand rendez xam naa ne bu bu bu ma juumul si ñi ñu prévoir woon njëkk invité defe naa si grand rendez-vous muy soog a door si nga bokkoon. waaw waaw mais xam naa ne boobu ba léegi. Euh, activités yi moo taxoon xëy na jotoo mën a ñëw donc ñu lay dalal bu baax di kontaan bu baax si sa teew fi xam naa ne yow jaratul ñu lay ñu lay présenter mais bon xëy na dinañ présenter tuuti rek yow yow yaay kan sa palmarès defe naa nit ci xam nañ ko bu baax mais xëy na li ñu xamul tamit mooy xëy na côté euh, lutte euh, olympique nga xam ne jot nga si jot nga ci nekk vice champion d'Afrique bi bi ñu ko defee Johannesburg mais bëri na ay distinction yoo xam ne tamit xëy na gars yi xamuñu bu baax ne ne ne am nga ko parce que booy seet Lion d'or defe naa benn yoon nañ ko mës a jox benn lutteur te yow nañ ko joxoon euh, en 2005 COSYDEP euh, tamit nga xam ne ñoom ñu ngi yëngu si waaju wàllu éducation defal nañ la champion pour l'éducation en 2010 mais man li ma si gën a kii sax man li ma si gën a euh, marqué mooy nañ la élire mentor <coughs> mentor du du de de de la 16e cohorte promotion 2011 de ENDA Lead Africa te loolu booy seet defe naa ñi ko jot nekk ay Kéba Mbaye Cheikh Hamidou Kane Marie-Angélique Savané entre autres Aminata Traoré euh, ñoo xam ne vraiment du yënguwuñ sax si si si wàllu si wàllu wàllu lutte donc euh, muy wane ne xëj na yow euh, bu ñuy xool non seulement côté sport bi nekk nga si benn référence mais tam côté xëj na comportemental côté éducation loolu daf di loo xam ne dafa marqué nit yi daal yow si sa si sa carrière loolu noo koy analyser waaw xanaa nuyuwaat leen. Hmm. di nuyu plateau bi yëpp. li ma siy jàngat rek mooy dama koy wax toujours parce que nag gagner un combat du damay dem daan rek. Hmm. dafa war a nekk ci ni ngay dundee tous les jours. Hmm. ba tax comme ni nga ko waxee nit war a toog xalaat ne ah kële kat war na mun a doon modèle. pourquoi lii ñuy def duñ ko woo ñu ne ko ren yow yaay parrain bi par exemple fait loolu moo tax ñuy góor góorlu mm-hmm. bu ñu jógee ci arène bi ñu fexe ba nit war a mun a dajeeg ñun nuyu ñu jox ñaari loxo. dëgg la parce que comme ni nga ko waxee Lead Africa du caaxaan. Mm-hmm. man biñ ma ko waxee bett na ma bettu ma. Mm-hmm. parce que comme ni nga ko waxee. Euh, parrain yi ci mos bokk bariwul ñaar la mos doon Sénégal bu ma juumul kon il est temps bon jotoon na bu yàgg sax même bu dul mbër sportif dafa war a góor góorlu ci côté image parce que après dóorante beeg weq bal beeg karaté beeg lépp image bi moo fay des moo tax ñuy góorgóorlu ci côté boobu mm. mais booy xool si si wàllu sport par exemple comme ni ñu koy dundee ni nga xam ne showbiz la. léeg-léeg est-ce que côté côté côté tey bi côté yar bi. côté vraiment sérénité bi ngay génnee ak loolu ngay wone est-ce que parfois du la du nekk handicap. par exemple ñu ne kii vraiment du du populaire du du def show du du xëy na du indi sponsor wala yooyu est-ce que loolu doo jàpp ne benn instant dina doon si yow. benn waaw euh, fenn rek laa dul d'accord ak yow. Hmm. mooy dindi du indi sponsor. Hmm. loolu beneen affaire la xëy na mën nañ ko gën a yaatal. Hmm. mais am na loo xam ne en fait euh, yarewuñu ko. Hmm. man daal li ma xam ci sport bu ma waree dajeeg yow nag dinaa def tout pour déstabiliser la. du la manquer respect. dinaa fexe ba combat bi ñëpp xam ne kat. jour tel man dama war a dem stade seetaani am na lu xew. muy événement. Mhm. parce que bu ma juumul démb Diop combat yi fa mu sa fees ba ñu tëj buntu yi ñaari combat la muy suma combat ak Bombardier. Mhm. ak combat Modou Lo la woon fàtte na adversaire bi dina ñëwaat. Mhm, nekkoon ay waxu popularité yooyu waxatuñu loolu. Mm-hmm. combat bi des kay mooy fi ñu toll. Mm-hmm. tam nit ñi dematuñu stade. làmb ngi wàcc. Mm-hmm. démb rek làmb amoon na. dëgg la. te combat yu mel noonu bu amaan boo yéexee doo dugg kon tey bu ñuy wax ci làmb loolu lañu war a wax. loolu lañu war a wax. parce que booy gis tamit may wax euh, may wax euh, loolu par rapport ak euh, xëj na communication bi ak ak sponsor yi parce que dafa am benn bande dessinée xam naa loo tam si li ñu war a mën a waxtaane la bi nga fi ñëwee mhm. parce que balaa may wax si bande dessinée yow na nga nekk koo xam peut-être un des rares lutteurs boo xam ne wala sportif mhm. sur la scène internationale nañ la ñu nañ nañ la sóoraale lu bëri laay wax parce que gis nañ ko si canal benn benn émission bu tuddoon intérieur sport bu ñu defoon si yow intérieur waaw nga xam ne defe naa xëj na bëriwul ñu dugg si si domaine bu mel noonu euh, xëj na yow dafa xaw ma dafa tombe daal mais si yow daal def nañ si reportage bu mag ak booy xool tamit euh, livre bi nga xam ne génnoon nañ ko fi defe naa y a deux ans muy muy lutteur sénégalais nga xam ne au départ defe naa xëj na si si si làmb yëpp la waroon wax mais dafa mel ni yow nañ si Euh, jox la part du lion quoi moom laa bëgg wax ni donc dem nga ba gars yi ñu dem ba nekk say waay dugg si si si si say activité lu bëri donc euh, bu ñu si yokkee dessin animé bi nga xam ne moom moo génn moom moo génn mois de février bi 2014 nga xam ne euh, festival Angoulême bi bu dessin animé Euh, def na fa benn bande dessinée voilà man maa ngi jàng <laughs> festival festival bande dessinée bu Angoulême def na fa benn tabac euh, dernièrement euh, muy bande dessinée boo xam ne mu ngi tudd Yékini roi des arènes booy xool yow si si sur le plan international dañ dañ la sorale lu bëri daal si si wàllu boobu loolu loolu noo ko mën a comprendre. parce que loolu moo am Alioune. Hmm. xam nga nag dama déglu seen plateau bi sànq fii. Hmm. jàngoon naa ci lu bëree bëree bëri ngeen sori ci ba am fu ma xawoon neex lool dëgg la euh, daf ko wax malheureusement développé leen ko mhm. dafa mel ne ngeen xaw a fël wax ji tuuti mhm. te loolu moo am mooy soxor baaxul <laughs> waaw loolu dañ koy jiñ africain waaye xaw ma est-ce que loolu moo am. mais est-ce que ñun rek la. bu ñu wax sax Afrique. Sénégal nañ wax Sénégal. da nga invité oustaz Alioune Sall fii. Mm-hmm. mu toog parce que nag du tey daa mos a seetaan émission bi dama ko seetaan baax. yow xam nga moom bu baax. Mm-hmm. du tey. comme ni nga ko waxee émission bi bi nga koy créé man nga njëkk a waxal. malheureusement amu woon jot. Mm-hmm. mais paa bi daf wax lu am solo ci côté boobu. te amaluñu njëriñ. boo ma waxalul tey li ma def bu ma dee di nga ko wax. parce que dinañ dee. soxor naafeq iñaan jëmalewuñu fenn. te loolu moo yàq làmb tey attention. Ah loolu moo yàq làmb te duñ ko wax. loolu da nga foog ne loolu si si. loolu rek moo yàq làmb amul leneen. mais parce que yow li nga wax ni mbër bu ne mën na ko wax parce que mbër bu ne yaa ngi gis ne xëj na am na ku may soxore dégg naa kii daanu démb def ne warati nañ ma daal. non non rek xam nga dégg naa nit wax ko. Uh-huh. mais man damay wax bu may wax bopp laay waxal. Uh-huh, uh-huh. dama dem bëri ji ñu daan ma. Balla Gaye moo ma daan un grand champion. dëgg la. ba ma daanee bi ma demee ñu buggee indi dañ la sotoog yooyu ma ne leen déet mhm. duma fa nekk naan kii moom kenn daanu ma. Mhm. moom moom laa moom laa doon bëreel mu daan ma. Mhm. am na yu ci xewoon ma dem faju ji ba wér. ba ma demee faju ba wér ñëw war a waxaat ak nit ñi. ñu ne ma ci lu ne ci lan nga ne woon wax leen ko mu jeex. loolu bokk la ñu daan la ngay wut lay. gis nga dañ ma jàpp walla dañ ma lii loolu. bu dee kuñ daan nga dañ maa jàpp wala lii dañ bàyyi làmb parce làmb làmb ba muy làmb ba tey moom ak mystique ñoo ànd ah, xëy na sax ci bëre dóor doo ko gis mais ñun bi ñuy bëre simple da nga daa gis danga nga daa wàlle ñu yeew la bu doo mën sax jóg ay yéen si mbapat loolu am dañ lay yeew biir làmb ji ñuy dagg sa yaram du mun a naaj hmm? commencé wul te di nga lijjanti ba jël làmb ji dem sa yoon kon loolu ay waxu ku boo gisee may wax si si si si bande bi. <laughs> waaw euh, parce que gars yi nañu def bande dessinée presque 400 pages man loolu def naa man. néew la ma gis waaw c'est la première fois ma gis bande dessinée euh, bu mel noonu. boo xam ne 400 pages xëj na. Euh, du yow rek yaa nekk ci biir mais monde de la lutte naa ñoom na ñu ñëw Sénégal analyser nañ ko lu yàgg. Mhm. donc monde de la lutte defe naa daanaka ñëpp ñu ngi ci biir. Mhm. ñoom Balla Gaye ñu ngi ci biir ñoom Tyson ñu ngi ci biir. ñëpp ngi ci ñëpp ngi ci biir defe naa ñu ngi xanaa dinañ leen fay ay droit d'auteur parce que yéen ñëpp. Euh, seen mooy la xam ñoom def nañ fi presque deux ans man xaw leen. Mhm. suma genre xamu ñu dem ba xam si làmb loo xam ne xëy na ñun ñi koy dund sax xamuñu ko. xamuñu ko xam lépp li nga wax nii yëpp amul benn mbër bu ko am. te lii du bëri daan moo koy maye. image la en fait. kon ay waxu li yàq làmb. dama bëgg ngeen nangu ko. te fuñ ma invité loolu laay wax ñëpp xam nañu ko. te ñaari pàtt rek la tey nag du ma tudd ne diw moo yàq làmb. dëgg la. parce que daf may métti Alioune. 5 heures du matin damay wàcc ci plage bi bu bët di set. boo xoolee place bi day ñuul kuk ay mbër tey fi làmb jëm baaxul pour ñoom bu ma nee baaxul pour ñoom nit mën na ko gisee mais man suma làmb jeex na def naa ñaar fukki at ak ñaar ci làmb vingt-deux ans lu ci des lu ma ci amul woon dootuma ko am. yow yow bi ngay bi ngay mujj avant ngay ngay ngay dajeeg Balla. <laughs> yow da nga ne woon ne xëj na ay 2 3 combats moo la dese. waaw léegi yow sa avenir. si lamb yow yow noo ko gisee yow. tey pour mm-hmm. ñëpp mm-hmm. bu ma bëreetul sax doy na. dëgg <laughs> loolu yéen tamit. <laughs> ma bëreetul doy na. mënatuma def lu ma deful woon ci làmb. c'est clair mënatuma ci am lu ma ci amul. Mm-hmm. yàlla teral na ma ci làmb ndax attention. parce que loolu mooy question bi. parce que ñu bëri ñu ngi wax naan damay ñëw rek. gis nga loo xam ne yàlla bëgg ko. man bu ñuy wax Yékini tey wala Yaxya làmb moo tax. ba may dem ci daara ji di jàngi wala may dem di nappi kenn xaw ma bi ma ñëwee ci làmb ji lañ ma xam. yàlla suturaal ma ci. ba tey ñu naan nii kon lu ma am làmb la du ko xarab. Mhm. ma def ci palmarès boo xam ni benn mbër defu ko. Mm-hmm. yaa ngi noonu parce que lu amul seede baaxul. tubaab yooyu xaw ma leen. Mm-hmm. fii nag duñ ko wax. Mm-hmm. comme ni ko waa ji waxee sànq. bu ma dee dinañ ko wax. wala léeg-léeg nga gis sax ku rëccale bu ñàkkee pexe wax ko. loolu grave parce que mooy li ma rek man wutatuma ku may waxal. comme tubaab yoo xam ne xaw ma fuñ dëkk. ñu ngi wax doy na te léeg-léeg ñu invité ma dem fekki leen. am na seede am na reporter yoo xam ne dama leen daa jël fi yóbbaale yóbbaale leen kon euh, dama bëgg waa làmb ñun ñëpp ku ne seetaat sa bopp làmb dafa yàqu. mais léegi yow yow ban analyse nga def si par exemple euh, làmb ji comme li nga wax tournure bi mu jël nga xam ne xëj na fa mu jëm du neex ñëpp. léegi yow lan moo ko waral parce que ñu ngi wax violence bi ak yooyu mais gis nañ ne violence bi quand même ngi commencé wàññeeku. parce que bëri xam nga nag Aline Aline boo ma laajee man dama lay xaw a képp tuuti. Hmm. Euh, booy wax tey waxu violence. Hmm. pare nga ne ma ci sa reñ la yenn sponsor yi daw. Hmm. non non waxuma ne nañu daw cest na ma ne <laughs> non non ma ne xëj na image bi ñuy wax ne par exemple. Euh, image yu yëkkati ëpp dinaa la dinaa la dinaa la baan Aliou. wax waxeet garaaw. <laughs> non waxee naa. ne ne gars yi analyse boobu nañ def. parce que waaw waaw nañ ne xëj na. damay damay ñëw rek cest à mm. li ñu war a wax waxuñu ko. làmb violence yàqu. Mm-hmm. ku dee ak sa bàmmeel. li am ci football moitié bi sax. amul ci làmb amul ci làmb. parce que man li ma fekkee laa wax ci arène bi. Mm-hmm. ñaari yoon benn bi dama ko dégg benn bi ma gis ko nit ku ñu dóor yat mu kaw ba ñu suspendre beneen mbër mi ak benn booy bu ñu ne woon gaañu woon na ci face à face su Modou ak Gris Bordeaux. Mm. ak ah, ah, kii euh, Garga Mbossé bu ñu sànni xeer ci ay si digg. ci waaw loolu laa lay wax man ne nit ku ñu xaañ laa wax. rang. Mm, mu këpp. waaw Égypte il a deux ans. gisuloo stade boo xam ne li fa dee presque mot na soixante-dix personnes. man dem naa Vélodrome gis naa li fay xew. Mhm. ak yeneen stade kon problème bi du foofu. làmb dafa am lu ci amoon engouement bu graaw ñu jékki-jékki man bi ma jee bëri léegi mu def deux ans. Mhm. du dëgg. bi ma mujjee bëree sponsor yëpp ñu ngi fi woon. léegi yow noonu damay ñëw rek bi ma mujjee bëree. sponsor yëpp ñu ngi fi woon léegi ma de euh, avril ma def deux ans yu ma bëriwul. dëgg la diggante boobu la sponsor yëpp dem. kon yow yaa yóbbaale sponsor. non non non dañuy waxtaan ci waxtaan lañ nekk. jaxee kon nangul ne yóbbaale wu ma ko wallaay yóbbaale wu ma ko tombé daal moo waral. ay gàmm ñu ko la di waxee. li ñu war a wax mooy. Hmm. ñun ñi séq làmb yëpp ku ne na nga seetaat sa bopp. parce que làmb dootuñu dajee di wax na lépp lu ñu waroon wax wax nañ ko. wax nañ ko. ñu waroon def def nañ ko ñun laa wax man ak suma génération. mais est que du benn cycle mooy jeex rek comme àdduna toujours na gis affaire bu demee ba. atteindre loolu mën na nekk phénomène loolu mën na nekk. Mm-hmm. mais attention dafa am loo xam ne dafay am ci làmb ji te du logique baaxul. Mm-hmm. mooy. clan. Mm. waaw ah, ñëpp ñu nañ uh-huh. ah da ngeen si xam ah, ah, dafa garaaw. gis dafa dafa rëy waaw man man man suma bàmmeel laa taxaw. te nee naa la oustaz Alioune Sall li gën a tax ma sawar ci émission bi Alioune xam naa la bu baax. suma waay nga mais li gën a tax ma sawar ñëw fii oustaz Alioune Sall laa seetaan mu toog. Mm. mu ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yëpp naa fekk lañu moom moo ko wax man waxuma ko. am nga élément mais loolu moo am. Euh, dafa ne point d'interrogation daf ne bu ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans te dëkk bi demul noonu ça veut dire que ah peut la wax. waxul peut am nga élément bi bu la neexee tegaat ko. te euh. ñun bu ñuy taxaw. Hmm. am kàddu ñu ñuy déglu. parce que nag euh, ñiy àddu di wax ci kaw suuf yëpp. ki ci gën mooy ki wax jëmale si yàlla. bu ma fenee tey bu ëllëgee yàlla dina ma sanctionné buñ gisee duñu war a wax it nañ koy wax. làmb dafa doxoon mun na doon cycle buy jeex. Mm-hmm. Barcelone ngi nii li may ñàkk xam football yëpp xam naa ne seen cycle mu ngi jeex. mu ngi jeex waaw. nga dem rek 3 lañ leen doon 3-0. Mm. si équipe boo xam ne demewul noonu. Mm. loolu dafay am. mais ci biir loolu yëpp. même bu cycle bi di jeex da ngay xam ne kat lii mi ngi fi mais am na lu ci manqué mais làmb ji ma seetaan démb bu fekkee ne làmb ren noonu la nar a continuer du baax. engouement bi amatul daal. amatul. xaalis bi moo fi nekkatul. te pourtant ah fans club yi ngi bëgg làmb ba léegi mais dootuñu dem am na lu tax. loolu nag bu ñu ko toppee tey duñ fi jógee. Mm, parce que. parce que loolu euh, dee xaalis mm. amatul. Mm. pourtant ñëpp nee nañ dëkk amatul xaalis kon du làmb ji rek. donc am na yeneen lu si laxasu xëy na bu ñu duggee si biir ak sama gars yi. di nga di nga si gën a sori bu ma waxee rek dama naan tekk pour yaakaar ne dina am ko si jël wàllam. <laughs> parce comme comme ñoom la ñu <laughs> ñoom dañu dañu discipliné dañuy xaar ñu jox leen kàddu xanaa ñu ñu tàmbali ñu tàmbali. si si si Nina. merci Aliou. Hmm. Euh, nga sànq nee dafay wax ne tekk déglu euh, temps en mais dañuy xaar Aliou jox ñu kàddu gi. Ah. pour ñu ñu mën a kii mais euh, sànq dafa am loo wax loo xamante ne mooy danga ne làmb ji dafa am clan. dafa bëri clan. mais clan yooyu est-ce que yow booy booy booy booy situer affaire yi si ay clan ah. autant mën nañu wax dafa am clan mais amoon na clan ni wala ba léegi clan ni am na waaw kañ bàyyi xam nga mën nag li ma gën a bëgg ci waxtaan mm. mooy ki may posé li ma bëgg a wax <laughs> dama lay may rek tey làmb ji mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy reporté wala boog promoteur. parce que nag làmb tey mbër la ak promoteur yeneen yëpp deuxième la. waaw mais bu du woon. reporter yi tamit non damay ñëw rek. Ah, reporter yi ah. reporter taxul ñuy wax ak ñiy seetaan non damay ñëw rek damay ñëw. xasuma leen xam nañ li may wax. làmb tey promoteur la ak mbër. amul benn promoteur bu la mun a wax ne Yaxya Jóob man la féetewoo amul. man xëy na ñi ci gën a ndaw mais promoteur yi ma fi fekk ñëpp tëgg nañ ma sëñ moo du Niass sax tëgg na ma. première mhm. premier combat ay commerçant ko tëggoon Xaadim Samb lañ joxoon pour mu organiser ko. Mhm. Gaston Mbengue waxaale wuñu ko Luc pëti mbay ñëpp tëgg nañ ma. Mhm. mais tey boo seetloo li may wax bu dul dëgg rek nee leen ma du dëgg. parce nag fii maa fi gën a nekk xale bu ma juumul. mbër moo gis tey ci làmb ji am na promoteur bu la féetewoo mais baaxul pour làmb amul njëriñ. kon il faut. bu ma la féetewoo dinañu séq loo xam ne dinaa la def looloo xam ne du la neex. te loolu moo am. loolu moo am. mais euh, Luc Nicolaï par exemple bu ñu jëlee benn ci euh, promoteur. mais mu loolu tam li ngay wax mën nañ ko féetalee Luc ak Yékini même si yow mën wax wax ne ñëpp tëgg nañ la mais mën nañ wax. peut-être que Luc Nicolaï à un moment. <laughs> non non favoriser na Yaxya. Ah ah, ah ah kooku séquñu dara séquñu dara kooku. je sais xam naa benn promoteur moo mos dugg suma kër. non astafurlah ñaar waaye guddi yi ma wax ak yow li ko jëlee 2004 ba tey benn promoteur moo mos a suma kër. muy kan. Gaston Mbengue. Mhm. benn yoon. kon man aw ma benn promoteur muy féetewoo mos naa dem këram benn yoon muy maye doomam. mais léegi yow loolu lan nan nga gisee ne par exemple le <laughs> fait que <laughs> ñëpp am ay waay yow mënoo am waay fi non du ñàkk waay de. Mm. xam nga bu fi Gaston toogoon waxtaan bi day gën a neex lool. Mm-hmm. maag moom. loolu seq nañ ko ci liggéey est-ce que du yow sa personalité peut-être yow yaa mënul duggante gars yi yow yaa am benn sévérité bi wala yow yaa neexuta je sais pas neexuta ñime wala yaa neexuta nekkal ba ñëpp am ay waay ci bi yow waaw ba tey mën nañu wax dafa naqari deret am ay principe mën nañu wax dafa naqaree defal mais lenn rek laa bëggoon benn promoteur wax ndax mos naa séq ak moom mu jafe ba ma am ci problème laajal ko la neex xëy na yow newloo ci milieu lamb kantaan nag xaritoo mooy li ma la rek man bugguma doon naa fekk diw dafa bari xarit diw xaritu ñëpp la boo ko seetloo ba ci naa fekk la man ah, xarit mënul xarit mais xarit bari xarit mënul bari. instant bi est-ce que bu ñu lay limal mën nañ la limal benn xarit. man waaw instant bii ñu toll nii te te te instant te bi waaw mënuñu la limal benn xarit. est que bu ñu lay limal mën nañ la limal benn. ndax mën nañ la limal benn xarit yow boo xam ne mun naa la tuddal turam tey. kii su ma doomu ndey la. Cheikh Ndaw ñëpp xam. moom kese. non dama wax rek. danga limal kenn. danga ma ni kenn. ma li ma lakkeen nag. waaw xam nga lu tax ma laaj la lool. waaw <laughs> parce que li nga wax affaire clan. ak li nga wax sànq ci mbirum làmb bi léegi. waaw parce que dañu toll foo xamante ne ku daanu surtout si ténor yi waxuma jeunes yi sax. mais ténor yi. te loolu d'emblée balaa may continuer sama développement baaxul te wax nga ko. surtout ténor yi léegi ku si am tour boo daanoo na ngay ne dañ ma yàqal dañ ma sot. dañ ma nangam dañ ma nangam mooy li ma loolu tontu nga cest loolu laa sànq ma ni mm. bu yàq dañ maa sot dañ dañ maa jàpp wax waaw si sànq li mu loolu laa bëgg développer pour indi affaire xarit bi. waaw parce que yow booy booy dem ci làmb. ñi nga wóolu ngay yóbbu. waaw ñi nga wóolu ñooy dugg sa kër. ñi nga wóolu ñooy ñoo lay gunge booy ngemb. ak yeneen affaire ak yeneen affaire yoo xam ne c'est pas la peine de rentrer dans les détails mais xam nañ ne am na fooy toll ci ci sa préparation ak fooy toll yow ci li ngay def ci làmb da ngay soxla sa xarit boo xamante ne dalay na yàq ya fii la du fii lii la wala lële la autant aussi sa xarit boobu moo la mën a yàqal <laughs> wala mu defaral la mais damay ñëw ci beneen affaire <laughs> mooy yàq yow yow da feebar ñëw bëre te yow sa xarit yi dañ la waroon a wax ne waruloo bëre parce que da nga xamuñu xamuñu tax mm. xamuñu woon lan moo xew xam nañ ne kii am na lu ne ci moom man xam naa suma feebar xam naa ni dama feebar mais xaw ma woon lan la exact comprendre nga. Mhm. dafa am fu ma bugg a dellusi rek parce que da ngay indi ne boo waree bëri ñi nga wóolu. Mhm. mais wor bañ koy wax ci àdduna yëpp. Mhm. borom da ko wóolu woon. Ah. boo ma la wóolu woon lu ma la fréquenté dina may waree. dina ma war mais loolu laay wax ni jaru ko parce que nag nañu xool fi ma wax yëpp amul kenn ku ma tuddul ne kii daf maa wor. journaux yaa ngi bind. nit ñaa ngi wax. àdduna. dina séparation dina am tey ñu ànd. suba xulafaa raashidiin ñoo ñu gënoon. pourtant dem nañ ba am ñoo xam ne sax dañ leen rey ci fin bi. ñoom musulmaan ak ñooñu. kon loolu mënul ñàkk ci àdduna. da nga wax sànq làmb. mbër ak produit ak promoteur. moo tax ñoo ci ëpp doole moo ñoo ci ëpp doole. mais aussi y a les médias te bu may wax média damay xaaj am na lu ñuy wax communicateur traditionnel. waaw am li ñuy wax reporter. Mm-hmm. te ñooñu bu dul woon ñooñu tey làmb bi du eh, duñ ko wane ba mu yegg fu mu yegg ba tubaab ñëw def dessin animé def bande dessinée ci yàq ya ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. ñooñu seen place tey. yow nan nga ko liiree da nga defe ne ci système mu clan yi la ñu bokk wala. seetaan nga Gaston Mbengue bu yàggul. waaw. mu ne bu ma kenn wayati. Mhm. bu ma kenn tàggati. ci yéen mais bañ ko doon way tamit. neexoon na damay ñëw rek damay ñëw rek gis nga nag. Mm. il faut que dara dal nga xam ko. waaw je d'accord. la mu wax. moom moo ko ñemee wax. la mu wax laa wax. Mhm. moom moo am fit boobu man ñemewu koo wax. mais la tax mu wax ko moom moo xam nee na bu ma kenn woyati bu ma kenn tàggati boo dajee ak moom nag na ko laaj man xam naa li tax mu wax man maa ni làmb li ci ëpp doole promoteur la ak mbër waxuma ni reporter amu si njëriñ. Ah, place reporter. waaw non damay damay ñëw rek. Ah. mbër ak promoteur ñooy gisee ba pare. wax ko média bi jot si wël fekk na demaguñ CNG sax ba pare après ñu dem CNG régulariser kon lépp loo gis dafa am fu muy commencé waxuma ni reporter amul njëriñ man am naa xaritu reporter du dëgg awma ci kenn problème léeg-léeg nag ay xam nga yu sew am ay nit lañu loolu du ñàkk mais man yaakaar naa reporter yi ma seqalul teraanga ci làmb bëriwul ba may bëree bu ma bëree ba pare jël enveloppe du màggetu mbër du reporter ku ne ma def ak yow li ma war a def ak yow du tey kon ñooñu néew ma bokkuñ ci làmb bu ñu ci bokkul woon du ma ko def <coughs> yow mi ci bokkul defuma ko ak yow <laughs> waaw jërëjëf ya man si tënk rek parce que ñëw nga si yu bëri yoon si problème actuelu làmb bi nga ne que ni soxor moo ko indi ak tamit far bi. damay damay ñëw rek tuuti. Uh-huh. parce que dama ni. dafa am lu Badou wax. Uh-huh. dafay laal ci secteur yu bëri. Uh-huh. ba laal na ci làmb. waaw yow léegi lan nga jàpp exactement ne mooy problème bi ak nax saafara mën na am ak noo xalaatee ne. war ngeen ko mën euh, dafay compliqué xam lu tax. Mm. parce que man dama dégg ay yoon. Mm. nit ku bokk ci CNG. Mm. ñu ne ko ndax cent millions yi ñuy wax ci làmb yooyu mu ne ah ñun de yëguñu ko. waaw loolu dégg nañ ko ba tàyyi loolu jaaxal nu loolu. xam nga loolu. Mm-hmm. te muy wóor na la ni am na. mais est que egg na CNG cent millions boobu est-ce que. signé na ko xam nga euh, bu kenn nelaw. parce que mag mu ne mag mu nelawul kenn mënu koo yee. nit ku ne xam nga ni àdduna bi di fonctionner promoteurs yi dañu am ay charge bu dee li nga bugg a def yëpp da nga bugg a jaarale CNG boo paree dootoo tëgg làmb. kon yow na nga cautionné le fait que nga déclaré. 40 mais est ko éliminer si luy avancer làmb ji euh, man du max ñu éliminer ko attention nag boobu am na foo xam ne moom. parce que CNG état moo ko fi teg. mais est-ce que am na njëriñ. parce que damay damay damay ñëw rek am na njëriñ amul njëriñ loolu beneen débat la. Mhm. am na lu ñuy def loo xam ne par exemple boo ma ne woon ndax lii d'accord nga ci ma ne la d'accord ci mhm. waaye ndax CNG am na njëriñ loolu question bu xaw dooy laa la hmm, ko. boo xam parce que wax nga ko léegi nee nga làmb bi ñu koy def mooy promoteur bi. ak mbër bi nuy waxtaan. ba juboo waxtaan suñu juboowee tëgg ko. média yi si wala. lépp loo gis am àdduna foog mu am arbitre. waaw mais peut-être mënoon na am fédération làmb boo xam ne duñ fi nekk di dagg nit yi di ko lekk non fédération euh, dafay compliqué pour làmb xam nga fédération bu amoon tey rek promoteur bokkatul mm-hmm. la fédération mooy organiser en fait bu ma juumoon kon CNG CNG parce que booy xool box am na fédération ay yu bëri ay WA. te far booy wax sànq sax dafa am ci xam nga lu tax li ñuy wax nii. dañ ko essayé ba sonn wax ci pour làmb te sottiwul moom kay li war a wax. mooy comité boobu ñu xoolaat ko. saytu parce que dama lay jox exemple rek. combat bu neex moo fi passé. Mhm. combat bu neex. Eumeu Sène ak Modou Lo. maa mhm. ngi toog suma kër di seetaan. combat boobu ak ni mu yàggee. Mhm. ñaari mbëri rek la leen war a yërëm parce que mhm. combat bi ëpp na at. mu wóor la ne ñii ñu ngi bëre loo xam ne duñ ci am dara. ñu bëre combat bu mel noonu. bu amoon sanction sax war nga leen mun a baal. boo ci d' accord rek ne ma d' accord ma ci. non dëgg la yoon sax. voilà parce que triché wu ñu triché wu ñu bëri ñëw bëri normal. Mm-hmm. nit ki sa liggéey da ci def erreur. Mm-hmm. boo xoolee temps bi combat bi def. ak liñ ci sonn yëpp. Mm-hmm. amuñu dara. nga bëgg leen daggaat boobu xaalis. mais mais mais loolu xanaa yéen waxtaanoo leen si ak CNG ba war a xam ñaata nañu war a dagg parce que man charge yi may gis ñoom di teg. def naa même NBA sax. bu ñu leen di dóor ay sanctions san te ñooñu ay milliardaires ñooñu kenn du leen dóor ay sanctions mais léegi bu dee yow euh, da nga nga bëgg am benn liggéey boo xam ne mooy bu waaji ne sëxët rek nga ne 1 million 2 millions 3 mais loolu est-ce que gaaw bàyyi est-ce que c'est CNG dañ ko gaaw bàyyi parce que dugg moo tax ma ni ko moo tax ma ni ko moo tax ma euh, ni ko jële fi CNG bi man du ma ko wax mm-hmm. mais bëri na loo xam ne dañ ko war a xoolaat mm-hmm. tam àdduna mm-hmm. la ñu nekk te nit ku dul jum amul. Mm-hmm. mbër surtout làmb dafa metti mm-hmm. man de xawma nu ëmm seen préparé xawma nu Modou préparé mais wóor na ma seen combat bi liñ ci gagné tuuti na lool. Mm-hmm. man wóor na ma lool. kon il faut que yërmande di am. yërmande te seen wàllu <laughs> làmb mooy seul boo xam ne amul règlement. gis nañ fi làmb Modou Lo am na règlement non ah, bi day changé ndaxte lu ñu gis fi Modou Lo ak Gris Bordeaux loolu mosuma ko dégg si làmb gars yi bëre ba temps réglementaire bi jeex noo a dem prolongation nu ne prolongation du am ku ëppale ku ëppale avertissement moo perte beneen combat am gars yi dem ba biir nu ne prolongation après mais amul ah règlement chaque si leeralal mais man euh, règlement CNG man ma ko xëy na moom mu ëpp ñu ci ah, xam man mënu ma ko yow yow sa carrière fi mu toll nii en ce moment tëgg nga combat wala tëggugoo combat man yàgg naa tëgg combat non non ndax tëggal neen la combat ndax signé nga combat déedéet signé wu signé wu ma joxuñu ma loolu ñuy wax logal avance bokk mais yow yaa ngi écurie Ndakaaru ba léegi wala yaa ngi parce que gars yi nu mu doon wax ay rumeur ne mel ni boobu nga organiser nga jox ancienne gloire yi joxu waa Ndakaaru ñoom Kati Diop. joxuma Kati voilà waaye jox naa yi su jéem. suñu magu écurie. moom. xaw a lëndëm ma leeral dëgg la. parce que <laughs> Youssou Dieng mm-hmm. ma daa jël si 15 heures jamono yu ma dëkkee Rebeuss 97. yóbbu ma géej. ñu ne fa ba 17 ñu ñëw fekk gars yi Assane Diouf. kooku la njëkk a décoré. ndaxte dafa am benn wax bu Confucius wax. te ah. Mandela tamit wax ko ne la plus grande victoire. n'est pas de jamais n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque chute ne ndam li dëgg du bañ a daanu mais mooy saa soo daanoo mën a jógaat mais yow sa jogaat boobu lañ gisagul ba léegi même si depuis sa défaite dafa mel ni da nga toog deux ans kenn déggu la bu nga ñëwaatee tamit peut-être gars yi tamit seen question yi. on s'attendait à ce que voilà quoi nu gis un retour nax yow fas ni nga jógaat wala da nga fas euh, mooy li ma lay wax kon am na lu la xaw a rëcc ci làmb ji tuuti. waaw man juin daaw laa génnaat def point de presse organiser benn tournoi. tournoi pour. ñi nga xam ne ay soppeexee lañu wala amateuru làmb bokk ñu ñëw Demba Diop mel noo xam ni mosu ko mel ci bëre simple du dëgg ma ni pare naa kat pour bërewaat fekk am na promoteur bu ma doon topp waxuma saison bi ñu nekk ba le pour ma bëreel ko du dëgg mënuma woon bëre parce que maa ngi doon faju bi ma paree nii nii nii nii kii suma seede bala maa def dara damay xëy reyante ba sonn saa def benn deux heures temps wala trois heures temps door dox sumay soxla mm-hmm. waaye nag bala ngaa bëri dañ laa tëgg du dëgg mm-hmm. vrai retour boobu ngay wax mënul am te bëriwuma mais kon Eumeu euh, si ñëw xaaral ma leeral rek parce que ñu ngi ñuy seetaan Gaston Mbengue joxuma 1000 francs signé wu ma ak moom contrat am na suma accord de principe ñëw na waxtaan ak man ma ne ko ah, baax na buñ ci yeggee <coughs> la mu seq ak nag wax dëgg man xaw ma ko mais tey signé wu ma dara. mais est-ce que si condition yi làmb ji toll tey fas yéene nga bëreewaat parce que am na promoteur bu génn ne ak sponsor yi ñu am tey kenn mënatul tëgg combat au-delà de 40 millions est-ce que yow si condition yi man am na cachet yu minable yoo xam ne dootuma ko mës a bëri. bul sonn. kon condition yi nu ne tey tey yow damay damay damay ñëw rek xam nga man am loo xam ne romb naa ko. mais xam nga dafa am réalité tamit. waaw ñëw rek. mais dafa am commencé ci wax dafa ci waxtaan. Mhm. dama daa xëy di dox. xëy di dox ba 16 heures ci ngoon. Mhm. pour gagner 6500. dëgg la mais xam nga contexte. Ah, non damay ñëw rek. di ko dund. ba fi ma yegg si tey. am na loo xam ne ba ma ko naree defaat bàyyi làmb léebal naa la sànq ne la. ndax li ma bëre dafa doyul. am na loo xam ne ko nangu. mais nga ñëwaat rek jógaat bu nuy wax nga wane benn. non xam nga jógaat dama lay rek. la moo jógaat retour. Hmm, ça ne veut euh, euh, man dew ma woon. dew ma woon fen mhm. parce que amul kenn ku ma mës wax ne bàyyi naa làmb mhm. dama bëre woon ñu daan ma. Mhm. booy dox sax ba fakkatalu ne dellu ginnaaw xoolaat du dëgg biñ ma daanee waxuma kenn dama bàyyi làmb dama dem defaruwaat il y problème mooy dama feebaroon am lu ma dal te xawma ko dem naa toppatoo loolu ba yaakaar ni tey war naa mën a def suma entraînement dellu ci métier bi ma doon def muy bëre ma xamal nit ñi ne kat war naa ñëwaat point de presse organiser làmb mu neex ma continuer suma liggéey boobu ba léegi yàlla def na awma combat am na mbër yu toog trois ans quatre ans bëriwuñu kon euh, retour ak ñàkk retour daal ci gàttal ba ñëwaat ci li am na loo xam ne bu ma ko naree bëriwaat tey ma bàyyi ko <laughs> euh, nga jubilé voilà def voilà ñu ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci sa teewaay fii tey ndax euh, vraiment c'est pas tous les jours la ñuy recevoir un champion euh, vraiment de cette dimension euh, kontaan nañ ci lool te it wax dëgg yàlla mu nekk ni ko xam ne kii tey na ci waxinam loolu ñëpp sedd nañu ko mais Yaxya man li ma bëgg laaj rek mooy d'abord est-ce que làmb sport la pour yow. làmb sport la mais bokkul ak sport yi. Hmm. am différence mu leer tuuti. c'est un sport mais pas comme les autres. Mm-hmm. li indi loolu di lañ koy wax. Mm-hmm. da ngay préparer physiquement ak mystiquement. Mm-hmm. te amul yeneen sport amul ci yeneen sport yi. kon bokkul ak yeneen sport yi. nga yaakaar ne euh, ñun bëri bi ñuy def parce que bëri moom bëre euh, léeg-léeg damay faral di werante gars yi ne leen ou bien dañu xamul parce que bëre du propriété sénégalaise. déedéet déedéet bëre dafa yàgg ci àdduna ba àdduna soso ba léegi. moomuñu bëree ngi fi moomuñu ko. bu fekkee ne lutte peut-être avec frappe. Mm. waaw peut-être mën naa d'accord ci loolu mais est-ce que yaakaar nga ne suñu lutte avec frappe bi mën nañ ko exporter ba mu doon loo xam ne dañ koy war a pratiquer partout dans le monde entier. parce que mbër euh, ci li ñu xam fii yeew ay xaaw ngemb tuur sa bopp soow tuur ay saafara nga yaakaar ne loolu war nañ ko war na mën a doon loo xam ne. lu universel am na foo xam ne ba fa bëggee dem loolu ca kër ya lay yem. Mhm. ba mënul ñàkk parce que. yaa ngi seetaan MMA. UFC. Pride. lan la loolu cage weqante. mbëkk mbëkk amul d'accord. mais loolu du dara. organisation la rek. làmb boo dàq loolu junne yoon. très bien. Euh, <laughs> euh, Yaxya pour yow mbër mooy kan ban ban conception nga am ci. ci ci mbër mbër lan la war a lan mooy war a doon comportement yow noo ko déggee lan mooy mbër mooy mbër lan mooy euh, mbër pour man buur la buur hmm. li tax ñu wax buur hmm. euh, lan moo tax footballeur dina romb fenn basketteur romb fa discipline yëpp dinañ fa romb hmm. mais mbër rek ngay gis ci àdduna nga romb fenn nit koo xam ne mun nga koo jënd mu yëkkati 1000 francs ne la am lan moo tax loolu daj nañ la ko <laughs> kon moo tax mu ne la làmb dafa xaw a romb cadre nit tuuti parce que boo ko seetloo. parce que yow bi ngay ñëw fii sànq première partie bi rek yow jaxase nga fii ba déggatuñu. gars yi waaw waaw defe naa waa régie sax nañu bàyyi abandonné seen. waaw abandonné régie bi. c'est-à-dire làmb pour man yëfu buur la. Mhm. xëy na nag des fois comme ni ñu ko waxee yàlla dinay bin indi benn affaire ñun ñii ku ne war see jëriñoo muy verre bi le ku ne di ko xëccoo ba mu tuuru ba dootul mel ni mu war a mel moo ñu xaw a dal ci làmb mais amul spoor bu mel ni làmb ci naka wër nañ Afrique ba mu jeex man waaw mais boobu attention yax ya foofu dañuy euh, duñ juboo maag yow. parce que foofu du lutte avec frappe. non damay ñëw rek boobu bëri la. waaw damay ñëw rek parce que bëri nga wax. waaw bëri non non non lutte avec frappe laa wax lutte avec frappe laa wax. waaw lan mooy. mooy la ma li dox lutte avec frappe xam nga lu tax. Hmm. dama lay indil exemple lu MMA. UFC ak Pride. Hmm. am na coup de genou. Hmm. am na conc. boxe taille. Mhm, boxe taille mbootaay. làmb ak bëre waaw parce que ak voilà ak bëre. lii rek moo ci am. du dëgg. Mhm. ma ne la comme loolu lañu ñu organiser ba mu mel ni mu mel. parce que man bu doon loo xam ne daf ma ump. mais man dama wër. Mhm. dem seetaan ko Europe. dem Amérique am sens su dem assister ay combat ma ne mais lii du dara. mais organisation làmb <laughs> merci Yahya euh, ba ca topp mooy. oui mën ngeen tàcc loolu. boo ma permettre woon ma laaj la benn affaire rek. boo ma permettre waaw ma laaj la benn affaire. bismillah judook làmb làmb. ban ci. ban ci bëre dóor wala bëre. bëre dóor ak judo lan moo dàq. judo. la ko tax mooy euh, règle yi. Euh, yi régir judo discipline bi nekk ci judo euh, gisuma ko ci làmb règle yi nga wax waaw règle yi mais man bu may wax tey discipline hmm. discipline bi nekk ci judo man technique bi ak aar bi laay wax mais est-ce que du euh, bu nekk am nga des fois mhm. am na seetaan keroog mhm. nga ni Modou lu tax hmm. xanaa da nga def judo waaw mais laaju ko xam nga dafa bokk clé yu bokk la. très bien wax nga ko. waaw judoka bi wutal ko tur. wutal ko tur te mbër mi wutal ko tur. te mbër mi wutal na ko tur sax. Mm-hmm. parce que loolu mu def yëpp. Mm-hmm. am na tur. du dëgg. Euh, kii bi nu mu tudd paa kii paajal bi noonu paajal bi. paajal bi fent bi waaw oto euh, si ci gannaaw. Euh, ma bàyyi la nga continuer. <laughs> très voilà euh, c'est bien parce que li mu wax ni dafa dugg ci suma laaj bu njëkk mooy que lamb bu ñu yaakaar ne ñun ñoo ko moom peut-être lamb bëre dóor. bëre dóor waaw bëre dóor peut-être Sénégal la ko moom mais làmb simple. làmb am na fu ne ba àdduna sosoo ba léegi am na euh, la ca topp mooy dama laaj sànq mbër mooy mooy kan mooy lan mooy c'est-à-dire parce que mbër yow noo gisee ma ne la mbër c'est un roi waaw euh, buur mais euh, xam nga lu tax noblesse bi ne ci làmb ak mbër est-ce que sital ma benn buur par exemple koo xam ne ki comportement en dehors de la l'arène yow naw nga ne kii ci mbër yi vraiment kii modèle la benn buur boo xam ne mun naa ko comparer ak mbër. benn mbër ci biir yi koo xam ne am na comportement. boo xam ne bii yow wóor na ne ki comportement la pour modèle nekk modèle ci euh, pour la jeunesse. nekk ko xam ne kii modèle daal mais bu ma ko waxee laa lay wax. non en à part yow. dafa am loo xam ni bu ma koy wax. à part yow. Euh, du titre. réalité la. quand man xalif laa man xalif. xalif mm. général. Mm. Euh, ma gis nit mer ci kii commentaire yi ay ree la may def parce que bu nit di wax bul dégg li mu wax rek xalaatal bu baax mbër war na mën a nekk lu ne demal Japon sumotor yi avec les sumotor yi xam nga ne ñooñu ay buur lañu c'est vrai lu tax man du ma doon buur lu tax man du ma doon xale mais waaw damay tontu damay tontu sën rek. waaw sumo. wax dëgg suñu bërëbee ko dàq. waaw parce que bële am na dóor. xam nga dafa fekk ne voilà xam eh. eh. nga kenn ci àdduna ci discipline. Eh, Yaxya lan mooy sa relation ak ak Modou su ma relation ak moom fenn la jóge mhm. damay def émission ak Bécaye mbay mhm. fekkoon na sax ma mos koo fekk regroupement te xaw ma ko woon mhm. que euh, xale la woon ma ne mooy kii ñu ne ma kii mooy mbëru parcelle bi ma fàtte ko ba gis ko mu bëre combat ak euh, Papa Sow wax dëgg ma gis taxawaayu mbër. parce que da koy yëg. Bécaye Mbaye ñëw suma kër ñuy def émission. muy lim génération boobu ba tëb ko. tëb ko tëb tafaatin ak keneen bi mu limee ba pare mu déglu ko parce que daf ma ni limoon ma ne ko déedéet damay bañ lim juum nit dégg ko foog ne dama koo limul. bi mu limee ba pare ma ne ko pare nga mun a ah, ma ne ko boole ci Modou Lo wax ji marqué ko moom Modou mu fexe ba am numéro suma benn xarit bu ñu wax ma ci am kooku moo taxoon mu jot ma téléphone kontaan ci lool ñu waxtaan mais xoolal li yàlla di def cofeel boobu yëpp li may am Modou xamul suma kër xaw ma këram mosuñu mosuñu woon gisee nii jaxaran wallahi lazim bokk comme ni ngeen ko waxee jouru mawlud parce que bokkuñu heure yi ñëw saal bi sax man dama xëy dama ni comme sonnoon naa dama demoon burdu ji bàyyil ma dem saal ba yëngatu tuuti ndax bu ma demee ngoon ngi ma bañ ko yëg ma dem saal ba fekk ko keroog laa mos a dajeeg Modou nii jaxaraan xaar ràññee ko ñu waxtaan échanger waxtaan te avant loolu xam nga bu nit ne buñ nee mbër ak ni mu bëggee dëkk moroomu mbërëm hmm. ñu ne ko loo xam ci yaxya mu ne du ma bëre moom conseil laa a soxla hmm. su ma mag la conseil laa soxla mbët bu rusu toj hmm. lii mooy suma relation ak ci nu ma tuddati ak Modou waaw nee na ci kombaam bu mujj bi jot nga ko conseiller loolu am na. loolu am na. Mhm. xam nga ëmma def ci noppal ñu bari. Mhm. Mhm. man mbër mu ma jege. bëgg ma waxtaan ak yow dinaa waxtaan ak yow. Modou nag dafa am cër ci man parce que moom moo ma ko ji moo ko wax. ëmma seen laa njëkk a xam ni Modou Lo. mais xëy na relation bi ma am ak Modou tey. aw ma ko ko am ma am nañu chance bu def ñaari regroupement. ëmma daana fanaan su ma néeg man. parce que regroupement daaw ma bokk kenn néeg man maa doon seen mag. mais yeggoon nañ ci léeg-léeg ma ne ko kaay fanaan fii kon am xam na moom bu baax moo Modou xam kii ëmma xam na ban genre laa. li ma wax ak Modou loolu laa wax ak moom ci télé laay waxee man du ma fenn. ñëw naa ñu waxtaan waa grand combat bi nag mu ne ko amul leneen li ma gis ngeen di def ci seen signature yooyu loolu du làmb hmm. boo demee làmb ja na dal hmm. la ci topp mooy merci beaucoup loolu parce que euh, comme wax na ko te itam ñu bare jot nañu remarqué loolu donc lu ñu waroon a laaj Yaxya Jóob Yékini mu tontu ci. Mhm. tontu na ci ak franchise bi ñu ko xamee euh, la ca topp mooy danga wax sànq ne amatul loolu luy prouver ci làmb. mais kon lan mooy euh, utilité tey fi mu nekk nii nga bëgg a dellusiwaat ci làmb bëgg a am benn. combat wala bëgg a bëriwaat pour lan parce que mënatoo prouver. Euh, dara ci làmb dama euh, bëgg dama bëgg a gañe bala maa bàyyi xam nga ne bu ma gañe woon par exemple Balla Gaye bu ma ko daanoon hmm. bàyyi bëri hmm. loolu moo nekkoon say plan mais léegi yàlla tere <laughs> très bien looloo fi ne woon dama sonn dëgg la waaw mais xam nañu ne ba léegi encore <laughs> man euh, xaw ma ndax fàttaliku nga ko wala déet. mos na am benn combat boo xam ne mos nañ ci waxtaan. ma wax la nga ne ma ah, grand bàyyil rek bon. waaw ma ci dellu si parce que duñ fi tudd tur. waaw waaw ah, mais. Euh, boo toogee ba olympique. boo toogee ba ñu <laughs> def la le meilleur lutteur de cinquante dernières années mm-hmm. lion d'or oh. vraiment ci distinction bu oh. sportif di ah. am vraiment nga am ko ak ku dul sportif tamit ak ku dul sportif ah euh, wax nañ fi léegi kii vraiment yàlla tere je ne te le souhaite pas mais tey euh, à supposer nga dellu suwaatoon ci làmb bëri waat daan ñu daan ma dana def un grand coup si dana metti de waaye nag xam nga man <laughs> man dama bëgg defi mm-hmm. mën na nekk ak mënul nekk loolu laay bañ. buñ <laughs> buñ mën na nekk ak mënul nekk rek. Uh-huh. dinaa ko def. tontu naa ci nag sànq. Mm-hmm. mais mais da ngay laaj benn yamamaay comme ça nga génn en beauté. wala da ngay fekk bi ma defee suma point de presse. benn punkal nee naa leen bugguma combat farce soq nga hmm? na loo xam ne moom boo ma ci naree fekk. nga ko nee naa leen li ma def doy na. lii ngeen bind lii ñu bind man binduma ko. Mm-hmm. yal na ko mbër amaat nga leen amin amiin que mbër amaat ko. dina jafe mooy yóbbu làmb. ndamu làmb dina jafe. moo tax ma ne la moo tax ma ne grand bi sànq. jafe ci biir loolu am na cachet yoo xam ni. ba ma ko naratee bëri tey bàyyi ko sama rakk yi. parce que riche mm. mais làmb daf ma taral. ñun dañu war a delloo làmb jukkal hmm. da nga wax sànq ne euh, làmb sport la. non non non deux petites questions rek moom moo des Aliou. damay damay voilà damay boucler ñaari kër parce que xam nga li ñuy euh, tax di laaj tey yax ya ni euh, tey question yu bari yi dafa am téléspectateur yu bari yoo xam ne ah, ñu ñuy seetaan. dañ ko xiif bëgg nañu poser. question yi te amuñu te déwén nga may gisaat ba mu amul combat. waaw ah, gis nga loolu ah. voilà ah, du ñu am euh, possibilité moo tax lépp lu ñëw ci xel mi rek ñu laaj ko ko bala ñu fiy jóge nga xam ne bu ci tontoo mm. alors ku ci nekk boo toogee sa kër nga ne ah mm. voilà yax ya kii effectivement may nag mm. man dama bëgg de grand laaj leen ma lu leen neex voilà la euh, dëgg la très bien <laughs> la ca topp mooy euh, Yaxya tey yaakaaroon na il est grand temps bu fekkee ne arène nationale bi ñuy wax nii mbër yëpp di ko coow. yow yaakaarul ne xaalis biy dugg ci làmb ji tey promoteurs yi ak yi war nañu mën a dajaloo dal di defar làmb. def seen arène nationale. d'accord ma lu tax. état dama lay laaj rek état lan la def pour làmb. lu làmb def. Ah? lu làmb def pour état. waaw kañ bàyyi. Mhm. làmb mooy def. Mhm. bu làmb bu mag amee ñëpp fàtte état. kenn dootul xalaat état pendant un mois wala deux mois làmb ji rek la ñuy wax kenn lijjanteetul état ñëpp fàtte ko mais ki lay indi loolu te dënk la alalam dootul xalaat. ba pare nga koy dagg ay impôt xam nga ne làmb mi ngi dem dara ci état bu baax seen impôt euh, kooku. ko xalaat man dama ci fekkee ñaar. 2003 mm-hmm. bi ñu président Ablaye Wade recevoir. man ci ñi jiite woon délégation bi laa bokk man maa njëkk ko wax lu doy waar laa lay wax nii. Mhm. parce que li gars yi wax am na man dama naqaree defal ku naqaree defal la mais toujours dafa mu koy teg dañu dem rek ndeysaan moo génnee ñu plan xam nga président lay Wade il est très fort. yaa ngi yaa ngi politique de. non man faral man euh, euh, déggoo li ma lay wax. déggoo li ma lay dañu wax rek. Euh, y avait Kader Sow. Mm-hmm. ak Pape Diop. ak Pape Diop indil plan bi. <laughs> wallaay fi ma toog ma rëyee dama rëyee. Mm. parce que xam naa ni daf ñu nax. du noonu loolu dafa yomb trop. ñu wax rek ba pare mu ne eh indil. mu ngi. arène nationale. ñëpp tàcc <laughs> non mu ne ñaar laay defar mu ne ñaari lay defar. mu ne ñaar laay defar arène municipal laa leen defal fii nii mooy li des si Demba Diop bi benn bi ma defoon ma def. <laughs> il est <laughs> biñ génnee. wallaahi am na ko ñu ko ma dendal bëgguma tudd turam ma ne ko est-ce que xam nga wóor na leen ni paa bi daf ñuy nax. mun na ma yaxee da nga contre pas bi. mais lu tax waxoo ko bi nga nekkee si biir. ñeme ñeme ma ko wax damay tëj. <laughs> dégg nga boobu ba tey ah mi ngi noonu léegi <laughs> sanse wax ma rek promoteur warul defar mbër warul defar mm. euh, fi ñu koy def nag daf ma jaaxal fi mu ne mm. ndax espace yi desoon Dakar ñu waroon fa def arène jël nañ ko jël fañ ñu waxoon mooy di desoon ci amitié bi noonu mm-hmm. te ñu mujj ko jox kalo bu lay fa la waroon def arène bi te mu jekkoon lool mm-hmm. léegi arène bi ñuy wax nii fan la boo tey euh, Sanekh boo buggoon defar arène yow mm-hmm. nga doon promoteur boo xam da nga bëgg a defar arène pour gars yi la fa waaw foo koy defar gaa yi nga doon wax technopole la. Hmm. nañ ko def côté banlieue parce que ñu ëpp ñuy dem côté boobu lañuy ñuy jógee tamit pas su bëri. nañuy wax rek de. Hmm, hmm. nañuy wax rek de làmb. banlieue danañu ñëw. ñi dëkkul banlieue danañ ñëw. am na ñoo xam ne. ñooy jiitu dañ jóge sama Banjul. man dëkk. Joal laa dëkk. dañ fay jóge baasul ñi fay jóge fajar lañuy jóge bu ma waree bëre. mais foofoo gën a jege soo jógee ci région yi. fan ci côté technopole. ak fi benn la. Hmm. Hmm. yàlla def na sax fen sureetul. Hmm. dëgg la waaw Yaxya <laughs> euh, dafa am benn laaj bu ma bugg laaj boo xam ne bii. Euh, laaj bu bu am solo la. Euh, wax sànq ne làmb sport la. kii di sport di victoire et défaite. Yaxya am défaite daal di réer kenn gisatu ko benn. ñaareel ba mooy Yaxya dañ la xam ci calme. Mm-hmm. wax dëgg yàlla wax la xam la ci calme alors nekk ni ko xam ne ki ku tey di ngay wax alors da koy teg ci yoon mu mm-hmm. doon loo xam ne lu luy mm-hmm. neex a dégg la. mais xamuñu lu xew. Euh, sa combat avant ak Balla Gaye Yaxya disjoncté complètement di wax benn façon boo xam ne bii. <laughs> xamewuñ ko ci moom euh, nekkul nit ñi dem nañu sax bu naan kii mbaadu dañ ko xabtal kii lan dañ ko jàpp lan moo xew parce que xameetuñu Yaxya Jóob Yékini bi nga xam ne bii moom la nit ñi xamoon ci tal ci dal ci dal ci tey alors combat bi jub si mu disjoncté boo à la limite am ci ay supporters yoo xam ne sax affaire bi jaaxal na leen looy tontu ci loolu euh, mu ñëwagum ci cadre nit avant ñuy dem ci mbër hmm. nit dinay juum surtout bu sonnee benn wala nga nekk ak méttit da ngay mm-hmm. naqaree nekkal mm-hmm. ñaar yooyu amoon na ci am loo xam ne buñ paree léegi dinaa la ko wax mm-hmm. léegi waaw liste rouge laa koy dugal ah, <laughs> mais bu dee d'accord ngeen ci li ma wax rek parce que nag bu leen ma raay dootu leen ma gisaat déwén ngeen may gisaat <laughs> nit bu sonnee ñaare <laughs> mm. wala mu nekk ak méttit dafay naqaree di nekkal après le combat ñi ma doon àndal ñëpp kenn ngi nii ba mu demee ba mu jeex ma jël suma vacance dem Île du Saloum dafa dix jours dama leen woo ma leen baal leen baax parce que kenn ku ne ci yéen wax naa la loo xam ne waruma la ko woon wax. wala ci sa entourage immédiat. yeah. parce que leen ko doo ko tey. Mm-hmm. ñoom dinañ la comprendre parce que même bu dul woon combat boobu. seen sa man bu ma xasee signé contrat hmm. su ma maslaa day néew lool danaa fexe nag ba bu may wax mu jub waaw mais bu may nekkee ci su may yëf hmm. kuy naqaree nekkal la hmm. ba ñu baree bari wallaahi lazim bu ma xasee signé contrat door ñëw suma kër waaye ba mu jeex parce que ñàkkanteeg yow day yomb loolu laa mos a dundee laa loo doon wax euh, Robert bi nga sukkee benn parce que comportement boobu moo suñu ko waaw parce que da nga sukk ma ne waaw lu tax ngay sukk mën a ko noo dara parce que sukkoo benn yoon ah, laaj na ma ko kati laaj na ma ko mën mhm. na ko dara parce que boobu ñoom seen xel ñaaw na mhm. mais ma leen ko wax xam nga bésu dee du bésu dund am na ñu bëree bëree bëree bëri. mais est-ce que réellement à ce moment précis lan la woon Yaxya. non boobu suma tànk bi mooy lakk. am nga neer bu coincé. Hmm. baaxul. Hmm. voilà loo gën a taxaw muy gën a tàng day lakk ci suuf. mais tey bu ma toogoon moment boobu ma lii mooy métti combat bi yàqu <coughs> ban njëriñ lay waaw ah, dina la éviter le ah, parce que am na li muy am na preuve. xam nga lan mooy défaite du du du ñu daan ah. dina la éviter chute xam nga lan mooy défaite. Mm-hmm. nga lan mooy défaite laa wax ci sportif. xam nga bu may bëree bu ñu ma laajee dama naan eh man gëw ma daan ak daanu daan laa gëm. Mm-hmm. mais defet soxna si xam nga lan mooy défaite. c'est la vie de tout grand champion. Mm-hmm. de connaître un jour la défaite. loolu mooy défaite. léegi yow man ki ma fan man Madiba. Mandela Nelson Mandela. Mm. defetam parce que nag 27 ans ñu tëj la ci kaso romb mënu defet mënu romb loolu. xoolal Mohamed Ali. Mm-hmm. mais nu leen di xàmmeewee champion yi mooy nu ñuy jógaatee mais yow peut-être un an boobu nga noppi gisuñu la mu mel ni tu as mal géré. non du loolu booba taluma loolu. mooy li ma la rek booba. parce que Gaston li may wax lu amul seede baaxul Gaston Mbengue ma loolu médecin yi sax pour am na na ñu ne exemple <laughs> li ko dal mais néew na ku muy dal nga nga nga génnaat si wala voilà Gaston Mbengue lu amul seede baaxul ma woo ne ma ne ma bëgg sa combat ak seen daaw mhm. ma ne ko Gaston dal mu bëree mhm. mais du ma ko wax li ma dal mhm. mu ngi ñu dinañu seetaan boo ko kojee laaj ko ba ma fajoo ba pare ñu daje nee naa ko jox ma sama chèque parce que li ma doon fajoo dafa bari il faut nga participer ci. <laughs> Yaxya <laughs> champion euh, nu may yeggali rek benn benn question moo des rek. Yaxya non non non dimbale ma rek benn benn question bu ndaw rek Yaxya bëggoon nga sa doom nekk ak problème yi nekk ci làmb yi. boo dajee ak moom léegi boo ko laajee mu ne la bëgguma doon mbër suma doom Alaaji Malick la tudd. yow bëggoon bëgg nga mu doon mbër. non suma doom laa wax. Mhm. Alaaji Malick la tudd. mais yow Yaxya la tudd. waaw <laughs> mu doon mbër. Aline ma tontu la foofu. xam nga ñaar ñooñu bokkul. Uh-huh. yaxya yoonu bi bi mu ne yaa yaxya xudzil kitaaba bi quwatin. Uh-huh. wa aatee naaxul sabiya. Uh-huh. yàlla na nga gën ñëpp. Eh, gënuma ñëpp mais gën naa ñu bari. du dëgg. Maodo bëgg naa mu gën ñëpp mais pas ci bari. suma d' accord nga ci jaajëf nga ci eh, <laughs> d' mu ngi lay bëgg a daaneel <laughs> la. ok eh, eh, innovation kenn xamul lii lu mu doon ah. lu doon bëgg wax. voilà nga. <laughs> non non yi ñuy jël œuvre scolaire yi ñuy jël di ci def mbër yi. ah mbër yi élèves yi di ko jàngee. est-ce que d'accord nga ci loolu Yaxya kaye yi ñuy dellu d'accord naa ci. ah kon de jubul. ah gars yi wayal lañ ko nag voilà. anniversaire Yeah. parce que tey vendredi bi ñuy diffusé mooy anniversaire bi Yékini vendredi. 28 février 28 février la judd. ah 74 super super super super. en plus 40 ans yi waaw léegi ñuy yegg ci réponse nga ne bu euh, d'accord nga ci xale yi nga xam ne bii. seen manuel scolaire yi ñuy def euh, photo Yaxya Diop Yékini beneen bër beneen bër. comme yooyu yaa fi nekk tey. man ma nga wax au nom de est-ce que d'accord nga ci loolu. d'accord naa ci à 100 pour cent. du tax. parce que mbër exemple la. li ñu ma bindal nii yëpp. xale yi dañ ko war a jàng. mais du mbër mbër yëpp ay am ñu bindal leen lii de. waaw mais loo gis am na guddeeg bëccëg. <laughs> ah. xam <coughs> nga léeg lekk sant sa ndeysaan malheureusement suñu temps mayu may ñu dama dem seeti sëñ bi mu yàggul Pape Malick hmm. ma laaj ko lu tax ci gàmmu gi nga ni fa isa bariqal basar hmm. wa jumi as-samsu wal qamar hmm. yaqulu al insanu yawma idin tey <laughs> <laughs> ah. moo tax dafa doy waar dañ ñoo war di def ci kay yi mbër yi buur buur la ñu ay modèle lañu ñu. ba mbër yi di entraîner ci école yi. Mm. mbër ci école la war entraîner xam nga lu tax. Mm. defuñu fa lu dul loolu. mbër yi 17 heures lañu ñëw wala après 17 heures entraîner ñibbi. mais da ngeen di tax xale yi toog di leen xaar ba guddi bu ngeen demee. ñu door a ñibbi Champions League wala Ligue des champions lu la neex. Mm-hmm. xale yi dañ koy seetaan. je suis su ma doom su ma doom dimanche maa ngi wax ak moom téléphone. mu naan ma papa may ma messi la. waaw. mënuma sax déglu loolu moo gën a garaaw. léegi léegi <laughs> léegi nga si njàng mi tamit njàng mi. wallaahi parce que du ñu gisee. waaw ma woo ko pour ñu wax. mu ne ma may ma messi la. toog di ko xaar ba mu pare. mais xam nga tamit si jàng bi. Hmm. Hmm? ak bande dessinée. mais mais yaa ngi jël mais mais parce que yaa ngi yaa ngi enchaîné non attends man Kémi Kémi dafa bëgg poser benn question il faut que ñu arrêté parce que émission bi vraiment fu mu toll nii <laughs> Kémi juste une question voilà vite fait ouais. très court j'ai le cœur j'ai le cœur qui bat vraiment comme un enfant <laughs> parce que déjà de un parce que j'ai peur qu'il me frappe et, et, et de deux non plus sérieusement parce que mm. c'est vous êtes le héros de mon fils. Mm. Et euh, vous êtes le héros d'un sport qui devrait être le sport modèle pour tous les Africains qu'ils respectent. Exactement. Un sport qui mêle la tradition, le mystique et la, la, la, la foi et le, le fait d'honorer nos ancêtres avec la démarche sportive. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et rien que pour ça, déjà, je veux vous, moi, vous mon affection à titre personnel. Et de deux, la deuxième chose, ça va être moins sympathique. C'est pour ça que je surveille votre coude depuis tout à l'heure. <laughs> Euh, c'est sur cette situation de CNC, on parlait bien mieux que moi, évidemment, qui ne suis qu'un enfant dans ce domaine, je ne fais que vous découvrir. Dans le fait que la société sénégalaise et in extenso la société africaine est en train de couler petit à petit. On parle souvent du LMD, mm. lutte, musique, Danse. ou D pour débilité. On peut, après échanger. Euh, vous êtes l'exception qui confirme la règle parce que vous êtes quelqu'un de humble, de modèle à l'extérieur Vous êtes quelqu'un qui enseigne la vertu à l'extérieur du domaine de la lutte et à l'intérieur aussi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vous aiment au-delà même de vos résultats sportifs. Mais ne pensez-vous pas qu'il est inquiétant et dangereux que dans ce pays qu'est le Sénégal, moi je suis venu dans ce pays parce que c'est le pays de Charanta à la base. Ça veut pas dire que ce pas le pays de Yekini aussi. Mm-hmm. Mais que <laughs> y a pas de ne pensez-vous pas qu'il soit quand même inquiétant que les jeunes connaissent plus votre nom, ton nom, mon frère, que le nom de savants ou d'aînés comme Anta Diop, qui sont ignorés de beaucoup de leurs compatriotes aujourd'hui Ne penses-tu pas que toi, qui es un champion, un modèle, et je le répète quand je dis modèle, même pour moi-même, T'as vu, j'essaie d'aménager pour que les choses se passent bien. Euh, ne, penses-tu pas qu'il soit important jeunes comprennent qu'il faut aussi étudier mhm. que euh, la lutte c'est bien, c'est bon, même pour euh, le développement de soi, le développement du corps, etc. Je te pose une question. Dis-moi, papa. Euh, ok, le bras. Sensei, la lutte existe depuis quand? Est-ce que tu as entendu le nom une université Robert Diouf ou Mbaye Guèye ou ah, un autre lutteur? Non. Mhm. c'est éternel. Amen. C'est pour ça que t'es un champion. Ouais. C'est pour ça que t'es un champion. C'est pour ça que t'es un champion. vraiment kontaan nañ li ñu bëgg a wax yëpp xam naa ne du du ci xel. mais bëgg nañu mais bande dessinée bi. bëgg nañu il faut il faut ñu wax xale yi. pour bande dessinée bi. waaw yow bande dessinée bi na nga woon bu ñëwee bu génnee di nga ko ñëw présenté ko. parce que bande dessinée bi aussi exactement euh, bëri bi ak liggéey leneen. waaw parce que bande dessinée bi xam nga xam nga foofu la ñu toll. waaw mun naa ko tontu après ma ñëw ci bande dessinée. day gàtt rek day gàtt rek xam nga tey. seen seen nag vraiment nag. voilà mbër mu toog. tey waaw waaw ñu bëgg a laajte mbër mu toog tey. bëgg a dépendre ci làmb kese. Mhm. boo liggéey da nga mere ko la deful dara. parce que le vrai combat. wax naa ko c'est après la lutte te carrière sportif dafa gàtt très bien bande dessinée bi ne woon bu ñëwee yow lan nga si fas bu ñëwee daal benn comme ni ñu ko waxee xam nga nag kilifa da koy fexee jot rek comme ñun ay ndongoy ndaw la ñu li ñu xalaat man ak suma staff mooy ci président la ñuy njëkkee nag loolu la laaj dem ci yeneen kilifa yu mel ni moom parce que président mooy njiitu réew mi waaye du moom rek moo fiy kilifa ku mel ni xalifa Sall par exemple mhm. ak keneen ak keneen ñu wol leen ko ñu xool lan lañ mën a def pour surtout xale yi mhm. mun ko am ci lu yomb parce que du ñun ñoo ko moom mhm. dañ ko defar d'accord ci suma tur ah, incha allahu rabbi ak ak ñeneen mbër yi si nekk yëpp sax parce ah, que bu fekkee ne yeneen mbër yëpp dañ leen war a fay it kooku du man maa parce que ñoom man laa man man ñëpp ngi ci biir ah. mhm. fayee koogu ma waaye man bu ñëwee man wàcc suma loxo dinañ la fay say droit euh, dinaa fexe président waaw du doon avocat wu ñëw sama avocat bopp ah, euh. <laughs> dinaa dem Mm-hmm. fexe président gis ko. keneen ak keneen gis ko. Mm-hmm. parce que nag ci loolu lañ toll mooy dañ doon wax rek. Mm-hmm. liñ doon liggéey il y vingt ans parce que nag bu ñuy liggéey reconversion lañu. dafa am solo foofu la ñu toll. te comme ni ngeen ko waxee suma sëriñ. la mu fayatul cent millions ci li ñu wax. kii te ci ñëwaat. la vraiment kontaan nañ. trop tey si li nga li nga teew fii si grand rendez-vous ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay vraiment jaajëfal bu baax. Mm-hmm. waaw après xam naa dañ la mosal si gâteau bi parce que léegi vraiment. sonn jox ma ma dagg ko may si xale bala ñuy wax ne mbër du. kii ak yooyu séddale <laughs> vraiment ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal seen vraiment ak ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp jaajëfal suñu public bi di jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne chaque àjjuma ma ngi ñuy toog di ñu seetaan ba muy guddi di guddi di leen di leen masow di jaajëfal technicien 2STV yëpp vraiment chroniqueurs yi public bi di leen wax à vendredi prochain incha allah jërëjëf euh, ñu leen tàkk bi monsieur Jalle <laughs> waaw ma ma ma ma takk ci tuuti. ah dëgg dëgg.